أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ngi ànd ak yéen seen borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suuratu yunus tey ñu jël ñetti aaya 101 102 103 ñetti aaya yi sunu boroom ñetti mbir dong lañ ci jàngal insha allah yooyu ba ca jiitu mooy laa tanfa al mawiz mahma balagha fiha abdan kutiba azalan annahu min ahli nnar suñu darsu tey suñu borom bokk na ci lim ñuy jàngal borom bi di ñu xamal ne waaraate am na ñoo xam ne du leen jëriñ lu ñu leen waar waar waar aaya bu ñu leen mën a indil xadis bu ñu leen mën a indil ñooñu du ñu dégg du ñu jëriñu lu tax ndax ca azal la yàlla bind ñooñu ne ñi safara lañ jëm kenn mënu ci dara waaraate mënul leen dara ñooñu la yàlla naan xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim xisaaba ñooñu lan mooy seen fay wala hum azabun jeex na ñooñu la yàlla naan inna charra dawaabi inda allah li gën a bon ci yàlla ci daaba luy dukkal ci kaw suuf mooy ñooñu ñooñ la yàlla naan ulaika kal an'am bal hum adal am na ñoo xam ne waaraate mënul ci ñoom dara sax ca mala'ul a'la ca ba yàlla di bind jaam ñi la yàlla wax ne ñii safara lañ jëm kon ñooñu waaraate mënul ci ñoom dara nit dina wax ne waaw yàlla bu bindee ci nit ne safara la jëm kooku kon jarul muy def dara kon safara la jëm ñoom xam nañ ne safara la jëm wala lan moo tax yàlla bind mu ne ñi àjjana la jëm mu ne ñi safara la jëm lu tax loolu dafa am ci àtte yàlla yi lu tudd alqada wal qadar wal machia nammu teefu yàlla ak àtteem ak dogalam yàlla su nammee dara daf koy àtte su ko àttee dogal ko kenn mënu ci dërëm ki dem marché jënd ginaar séq jënd ginaar bu jigéen mu ñëw ginaar yi sax bokkuñu fu ñu jógee ginaar gaa nga jóge Louga bee ginaar ma nga jóge Tàmba mu def leen ci kaafam ñu nekk ay ñu nekk ay père jëkkër ak jabar ñu tekki jékki commencé neen après ñu toj ñu jékki-jékki beneen beneen bi ñu am ay cuuj arrière ok ñu jékki-jékki waa ji commencé am ay nen commencé am ay ginaar kooku waa jooju su xëyee benn jour jël ñetti nen baxal wala mu omelette daa tooñ ginaar gi damay laajte kenn du tontu waa ji bu xëyee jël ñetti nen laa omelette wala mu baxal dafa tooñ ginaar gi ah lu tax tooñu ko moom moom mu ginaar gi ah bon su ñëwee suba mu bàyyi nen yi mu dem ci ginaar yi doom yu mag yi mu jàpp rey ah daan ne tey dañoo amay gan foog ñu lekk ginaar jël ñetti ginaar yi rey dafa tooñ dafa tooñ papa ji ak yaay ji damay laajte tooñul lu tax moom moom moom ñun tamit yàlla nu ko neex mu coobare ci ñun inna lillahi ma axasa wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu jeex na yàlla nu moom lu ko neex mu def moom moom moom wala ku moom am na droit coobarewu ci li mu moom lu ko neex wala dañoo am keneen ku du yàlla ku ñu moom ku leen moom yëpp dégguma dara de ku leen moom yàlla bind yàlla di sàkk kan moo bind leen ne ko sàkk ma yëkkati leen loxo yi bi yàlla diñ sàkk kan moo bind fii le eh, demande na ko man damaa bëgg nga sàkk ma nga def ma nit bon nga def ma africain bon ma dëkk Sénégal kan ku def demande waaw jeex na dafa neex mu sàkk la mënoon na la def mbaam wala xar wala béy wala mu daal lay def nit allahu akbar bi mu la defee nit mu génne la ci nit ñëpp bokk la def la jullit boole la ci xeetu muhammad mu def la nga nekk jullit booy la ci ahlu sunna wal jamaa ah te fa benn demande yàlla la neex yahdi man yasha wa yudillu man yasha su ko neexee mu jubal bu ko neexee mu réeral ci maandu teem moom yàlla jalla jalaalu wa azza kamaalu su bëggee sànq nit daf koy seetaan su bëggee jubal nit daf koy dimbali orienté ko su bëggee sànq nit da koy seetaan te donte ne may na ko ay jumtukaay yoo xam ne waajooju bu góorgóorlu woon ci jumtukaay yooyu du sànku yàlla bi mu bindee nit li mu namm ci moom mooy kooku mu nekk jullit mu gëm yàlla léegi nag waa ji moom bu ñëwee ne moom day jaar beneen yoon yàlla da koy seetaan ci maandu teem su fekkee waa ji dafa góorgóorlu yàlla ci maandu teem mu orienté ko mu daal di yegg si kon ibadallah suñu dars tey dinañ jàng suñu borom subhanahu wa taala nee na am na ñoo xam ne waaraate munul ci ñoom dara waaraate xam ngeen loolu sax am ñoo xam ne waaraate sax dañ koy daw suñu borom moo ñu ko nettali ci alxuraan nee na am na ñoo xam ne waaraate laa ilaha illa allah mooy waa safara lan moo tax ñu dugg safara bi gaa bi leen gaa yi laajee yéen lan ngeen doon xoola bu dugg safara lan lañ tont maa salakakum fi saqar lan lañ tont xaalul lam naku walam naku wa kunna wa kunna hatta yàlla mu ne fama tanfa'uhum shafaatu shafiin lu tax فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ñi xam nga lu tax tey ñu dugg safara suñ leen doon waar ci àdduna dañuy mel ne ay gëléem yu gis gaynde gëléem bu gisee gaynde nu muy def laaj la gëléem bu gisee gaynde nu muy def day taxaw lu muy def waaw nag yi bu ñu gisee gaynde nu ñuy def kenn du taxaw même bu ñu deen deux millions yëppay daw am na ñoo xam ne bu ñu déggee waaraate dañuy booy gaawal gaawal fii gars yi ñoo fi nekk de dégg nga wala bu dee télé ñu ne non am na ñoo xam ne bëgguñu dégg yàlla nee na soo leen nee yàlla rek wa iza zukira allahu wahdahu ismaazat qulubu lazina wa iza zukira min duni am na ñoo xam ne boo leen nee yàlla rek dañuy xat yenn saa yi nga invité conférence nga gis ay gars yi ñëw nga commencé conférence nga nga benn paa jóg waaw may dara day daw parce que li muy dégg la mënut a nangu mun ko dégg day daw keneen ki day ñëw ne la waaw waaw dafa amoon rendez-vous day daw mais foog nga comprendre leen parce que mënuñu dégg yàlla nee na non bu leen yaakaar ne ni ngeen mel loolu la ñëw bi mel de yéen da ngeen di yaakaar te ñu ne kaay leen ngeen déglu yàlla nee na kaay leen ngeen déglu portable yi def leen mode d'avion. mbokk yi kon portable yi def leen leen mode d'avion waaraate am na ñoo xam ne du leen jëriñ lu tax. ndax ñooñu kutiba azalan min ahli naar kooku dañ kaa bind azal démb ne safara la jëm ñaareel mooy maa yantaziru zalama fi kulli zaman wa makan illa ma xalla biman zalama min qablihim min alxizyi wal azab ñaareel bi ñuy jàng tey mooy tooñkat yi jamono bu nekk place bu nekk la ñuy xaar ñoom tooñkat yi mooy la danool seeni maam ci gàcce ak toroxtaange moom la ñuy xaar mu dal leen chaque jour ñi nga xam ne ay bokkaalekat yi yàlla lañ ay tooñkat lañ bidaa la ñuy dund lan la ñuy xaar la daloon seeni maam ci gàcceeg toroxtaange dal seen kaw benn kese la jamono jamono yëpp benn la bokkaalekat yi démb yi ñoo bokkaalekat yi bi tey yi benn lañ wala sax nga ne bokkaalekat yi tey yi ñoo gën a ñoo gën a dangereux lu tax bokkaalekat yi démb yi balaa ñu doon bokkaale yomb yomb ñëw bokkaalekat yi démb yi bala ñu doon bokkaale mu neex waaye bu ñu nekkoon ci gaal yàlla moo ñu ko nettali de wa iza rakibu fil fulka yéeg nañ gaal dem nañ ba 3 heures du matin géej gi fees na sambaraax na vague yaa ngi toj jóg di tóoj gaal gi ba nga xam ne bu nee nii day mel ne day këpp ndox maa ngi commencé dugg ci gaal bi nga dégg leen ñoom ñëpp lu ñuy def daawullaha muxlisiina lahu diin yàlla nee na dañ may woo kennal ma laa ilaha illa allah yàlla rek ah subhanallah maa yooyu la ñuy wax kennal yàlla dañ koy woo kennal ko sellal ko yàlla nee na fa lamma najjaahum ilal barri bu ñu waxee yuuxu yàlla yuuxu yàlla yuuxu yàlla ba yàlla nee na ma téye gaal gi téye géej gi yëf yi daal di fer ma daal leen di def ñu mucc bu ñu ñëwee ba tefes ñu ne ko sëfaro waayu vala laa ilaha illa so naano ma ko mini fa min maayet allahu akbar bu leen yàlla dimbalee ba tefes au lieu ñu sujjóot ñu sant yàlla cha mais capitaine bi boo garaaw il est fort hein mais bu doon du moom ñu ñëpp dañuy dee la ilaha illa allah ayna allah ana yàlla ñun ñëpp fii noonu la ñuy def ñun ñi ñëpp su oto ne kër kër ba yàlla dimbali ñu ñu rëcc c'est mais booy bi garaaw na mais chauffeur bi ak a garaaw mais gis nga capitaine bi mais gis nga pilote bi bi affaire bi ne kër kër mu daal di koy kii fekk ñun ñëpp bi oto bi ne rëng-rëng wala gaal gi ne rëng-rëng wala bato bi ne rëng-rëng ñun ñëpp dañoo fàtte chauffeur bi ku nekk fi nga jàpp yaa ngi naan laa ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah yàlla man de damaa am njaboot yàlla maa ngi ak ñe ku nekk yàlla ngay woo ba yàlla indi muccam indi suturaam fa iza hum yushrikun benn waay accident dana ma seeti ko ndeysaan génn na àdduna jamono yële yàlla na ko yàlla yërëm léegi diw accident dana comme dëkkandoo la dem ziyaare ji ko oustaz ma ne ah mu ne ma da ngeen di weddi gàllaaj mais dëgg la de man bu ma gàllaajul woon damay dee ndeysaan la ilaha illallah yéen da ngeen di weddi gàllaaj nag bu ñu waxee ngeen naan gàllaaj yaa gis nga gàllaaj dëgg la man bu ma takkul woon gàllaaj heure bi kenn waxatu ko parce que bul wax loolu gàllaaj gi mënul dara yàlla moo la muccal non bàyyi leen yooyu ngeen di wax imagine doomu aadama jël gàllaaj di ko tëkkaleeg yàlla tey ñun ñoom noonu lañ def ñoom lañ mel ñu opposé ñun gàllaaj yi la ñu gën a wóolu ak yàlla looloo tax suñu askar yeeg suñu julli yeeg suñu duwaay amul benn njëriñ amul sens parce que yow munoo taxaw ci kanam yàlla naan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fekk wóolu woo ko allah dundu ko wattadu béjjën bi lu muy def te yaa ngi wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñett a ngi fii ñett a ngi fii fii am na am na benn photo bu may gis ci Facebook bi waa ji fii ba fii rek xanaa mën na 200 fii ba fii siletement bi mu jiital kenn du gis siletement bi loolu lan la loolu est-ce que wóolu yàlla la gàllaaj yooyu gàllaaj yooyu waa ji takk waxuma yu nekk ci tànk yi waxuma yu nekk ci kër gi buntu kër gi bopp lal bi oto bi place bi kooku est-ce que gëm na yàlla ba pare nag léegi nga bëgg wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in du dëgg yonent yi yan gàllaaj lañ takkoon Ibrahima bi ñu koy sànni ci biir safara si ban ndombo la takkoon Moussa bi ñu koy dugal ci liir mu war a jëm ci Firawna ci biir dex gi mu ngi nekk liir bu tooy xap xap xap ban gàllaaj la ko yaay bi takkal ah damay laajte keroog bi nuux di dugg ci gaal gi ah yàlla ne ko defaral gaal mu defal gaal gi ba pare yàlla mu ne ko dugal ci xeet bu nekk ñaar gaal gi départ ban gaal laaj la takkoon ah léegi ñooñu li leen rëccaloon lu tax ñun mënuñoo rëccal ñooñu li leen musaloon lu tax ñun mënuñoo musal ñooñu ki leen làqoon ba ñu mucc lu tax kooku ñun mënuñoo làqata ci kooku kon foog ñu xoolaat suñu bopp gis ngeen am na ñoo xam ne xaaruñu lu dul la daloon gaa yooyu le mooy lan ñi doon tooñ yàlla tabaraka wa taala ci jamono bu nekk ak place bu nekk xaaruñu lu dul alxizyi wal azab lu dul torox ak mbugal torox tànge nag ku toog ci àdduna di ko xaar musiba dal na la ku toog ci àdduna di xaar torox tànge yàlla ak mbugalam kooku moom musiba weesuwul lu tax mooy da ngaa utiliser wul sa xel góorgóorlu woo ci sa diine xamoo lan moo tax yàlla sàkk la moo tax ngay toog di xaar la daloon say maam ci gàcceeg mbugal di la dal ixwatal iman ñetteel bu ñuy jàng mooy waxdullahi taala thabit li awliyaihi bi injaihim min xilaakin inda ihlaaki zolama almushrikin waadullah thabit diggu yàlla diggu yàlla day day am yàlla lu mu wax dafay am yàlla nurawul ak nun yàlla du koo xam ne dafay wax ba mu neex ko mu ne maa waxoon waxeet ko min haalno ñu ne ey ko an haalno mu ne mi yaldi hen ah kooku du yàlla yàlla maa yubaddalul qawlu la dayya allahu akbar wax na ko ba pare jeex na kenn dootu ko changé yàlla du wax di waxaat yàlla lu mu wax mooy man yàlla dinaa dimbali sama yonent yi ak ñi ànd ak ñoom inna la nansuru rusulana wallazina jeex na yàlla nee na dinaa dimbali sama yonent ak ñi ànd ak ñoom kon ndimbalal yàlla saabit lu sax la loolu bu ci kenn sikki sàkk xëy na àdduna dina métti nga gis ñuy toroxal jullit yi di leen rey di leen convoqué ci tribunaux yi di leen yóbbu police di leen sonal di leen di leen di leen di leen minimiser waaye dara wal aqibatu lil muttaqin jeex na takk wa man nasru illa min indillah jeex na takk yàlla li mu wax mooy dëgg beneen bi mooy yàlla dina dimbali way gëm yi bis buy alak bokkaalekat yi sunu borom subhanahu wa taala dina muccal way gëm yàlla yi tabaraka wa taala même bu fekkente ne dañoo alku ci mbugal moomu yàlla di wàcce suñuy dekki ëllëg yowmal xiyaam du ñu bokk fu ñu jëm yàlla mën na alagandoo àddina bi ñëpp benn fan benn seconde wala lu ko gën a tuuti jullit yéeg yéeféer yéeg naafeq yéeg ñëpp waaye ëllëg bu ñuy dekki du ñu dekkeendoo bu ñuy dekki al muminu ala imaanihi wal munaafiqu ala nifaaqihi ki gëmoon yàlla day dekki ak ngëmam jàng ngeen yonent bi nee na yubasu kullu abdin ala ma maata alayhi jaam bu nekk ni nga deewee noonu ngay dekkee ni nga deewee noonu ngay dekkee gis nga bu fekkoon ne dañu doon naan sàngara booy dekki butéel bi day nekk sa wet nga téye ko di naan boo deewoon ci sujjóot yowmal xiyaam bu ñuy dekki da ngay sujjóot déggu leen yonent bi nee na ku dee ci aj ku armal dee ci aj yonent bi nee na bu ngeen koy suul bu leen bu ngeen koy suul bu leen bu leen muur kanam gi ndax yowmal xiyaam buy dekki day labbayka allahumma labbayka jëm ci yàlla ñu xam ne ñii ñoo dee woon ci aj bu leen muur kanam gi ñooñu bu ñuy dekki dañuy labbayka ah ixwatal iman ayuhal ahbab kon ñetti aaya yi mooy yi nga xam ne tey moom la ñuy jël ci sunu dars ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu def ci ñun dégg ak topp ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينتظرون إلا مثل أيام
قل انظروا
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين barakallahu fiik jazakumullahu xeyran yal na nu yàlla fayal la yiw mbokk yi sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu du deñ ci coobareem ak kàttanam ak mën-mënum di ñu orienté di tourné waat sunuy xel pour ñu bañ a réer ñu bañ a sànk ñu bañ a alku bokk na ci aaya yi yàlla di orienté doomu aadama yi ak di leen woo ak di indi seeni xel pour xëcc leen aaya yi nekk sunu kanam qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ak gaañi waxal ak waa màkka ak li wër màkka waxal ak képp koo xam ne yàllaa la yónni ci moom nga nekk ak yonentam nga la waay wool waa quraysh ci gëm yàlla ci kennal ko ci topp ko waaye wax leen ñoom waa quraysh unzuru xool leen maaza fi samawati wal ard allahu akbar yàlla bu ñuy xoolloo lu nekk asamaan ak lu nekk ci suuf loolu est-ce que hasard la qul unzuru maaza fi samawati wal ard mbokk yi lan moo nekk asamaan dañoo toog nii rek xool asamaan nii rek mu bëla nii rek jeex na dara nekk lan moo nekk asamaan ci ay mbindeef est-ce que li nekk kaw asamaan ëpp lu nekk kaw suuf jant bi fa la nekk ah ci kaw asamaan moo suuf si loo ëpp damay laajte jant bi jant bi ëpp weer bi fa la nekk moo suuf si loo ëpp ah ñaata étoile ñoo nekk ci kaw yoo xamante ne ñoom ñoo ëpp suuf si ñaata la étoiles yëpp di daw bu nekk nekk ci ligne am kullun fii falakin kan moo koy orienté ana ñu fa nekk yu ay chauffeur oto yi di daw ci mbedd yi ci seen tali yi oto yi dafa am ay nit yu koy dawal wala oto yi dañoo am ay bouton rek yi dawal seen bopp. man xaw ma tax suma laajee gën du tontu. dafa am ñu koy dawal. avion yi naaw ci kaw asamaan si dafa am ñu koy dawal bala ñooy dawal seen bopp ay bouton bato yi ah sareet yi dafa am ñu koy dawal biddéew yi ne ci kaw asamaan kan moo koy dawal yàlla bu ñuy xoolloo asamaan du hasard xoolal biddéew yi ne ci kaw asamaan ñaata biddéew la mun ngeen ko compter ah xoolal lumière bi ñuy tàkk kan moo ko leeral ku ci def waa Sénélec ñoo ko branché pour non bi ngeen dundee ba léegi fii ñu nekk tey di tafsir ku fi mag ci jumaa ji laaj leen kooku jant bi boobu ba léegi kooku mu ngi fekk jant baa ngi tàkk fan la jant bi jëlee lumière bu muy tàkk kan moo mës a gis fii benn bis ñu koy ñu ne jant bi daa grève tey amul courant yàlla bu ñuy xoolloo asamaan xoolloo rek asamaan a ngi nii de téena ja déedéet yàlla dafa bëgg ñu xalaat inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi leyli wan nahaar la ayatin inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi leyli wan nahaar wal fulki allati tajri fi lbahr bima yanfau nnaas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف ها وتصريف waaw loolu yëpp yàlla bu ñu koy xoolloo da nga yaakaar dañuy xëy ni rek asamaan a ngi nii rek nit ñi dem yàlla dafa bëgg ñu xool li mu def asamaan ndax am na mbindeef mu ko mën soo xoolee asamaan ba pare mu lool na léegi waaw xoolal suuf encore ati fii ci biir jumaa ji am na am na menuisier menuisier yàlla defar nañu lal boo xam ne lal booy tabax ci lal boobu ngay tëdd ngay tibb tabax booy dëkk ci lal boobu ngay dëkk booy tëdd ci lal boobu ngay tëdd sooy dem àll ba ci lal boobu ngay dem àll ba booy sangu ci lal boobu ngay sangu ban menuisier moo mën a defar lal boobu ana menuisier yi ana ñoom daaw da kan moo mën a defar loolu yaa ayyuha nnaas ibudu rabbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum laallakum tattaquun allazi jaala lakum al arda allazi jaala lakum al arda firaas mooy lan yàlla nee na man maa leen defal suuf mu nekk lal suuf si xoolal yàlla moo nu ko lalal gan ma mun a defar lal boo xam ne loo soxla rek ci kaw lal bi nga koy def si suuf saa ngi nii lu ñu soxla ci lañ koy def su ngeen bëggee dox fan ngeen di jaar bu ngeen bëggee tëdd fu ngeen di dem soxta boo ko bëggee dawal foo koy dawal allazi jaala lakum al arda firasan والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من كل ثمرات رزقا لكم xoolal aaya ba bu muy yeex mu ne fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamun bu leen fontoo yàlla di ko utal ay ndend xam ngeen ne yàlla li mu def ñii mënuñu ko xoolal tey ñu naan ñii mooy yàlla kii mooy yàlla yàlla yàlla di dof dof la yàlla buy dee yàlla buy feebar dama amoon benn jarbaat mu ne yàlla la dama benn jarbaat ñaar ñett lañ kenn gi xëy feebar feebar jaax tàkk di bëgg a dee ba buñ koy yóbbu hôpital dañ koy jàppoo benn booy bi ne ko yow yow nga ne yàlla nga yàlla dina feebar ñu naan ko waaye bàyyi kii talul loolu mu ne waaye du moom moo wax yàlla la tey jii mu ngi ni feebar ñu jàpp ko yow yàlla nga yow yow la hôpital yàlla dañ ko yóbbu hôpital nit ñi dañoo réew rek waaw boo lekkee ba suur nag ñu indi la sa ataay nga naan climatiseur yi di la upp bu la neexee nga ne yow yaay yàlla waaye xam nga ne doo yàlla gaa yi nee nañ firaw na bi mu ne ana rabbukumul aala iblis daa jóg ba ci kaw daal li lii man nag lu may bandi bandi bandi gis naa ko maro man de musuma wax loolu mu ne cëpp fëgg firaw na mu ne kookal la mu ne xam nga ne doo yàlla de nga ana rabbukumul aala da ngaa réew rek iblis ñii li ñuy wax Sénégal iblis sax waxu ko wala iblis est-ce que wax na diw moo sàkk yàlla fii dégg ngeen ko ñu ne diw moo sàkk yàlla ñu ne bu doon du diw yàlla li mu am sax du ko am wala dégg leen loolu man de en tout cas damay jot audio damay jot vidéo xuma sax audio bi vidéo yooyu laa wax dama koy jit dama koy gis nii ki ko wax nekk waaw ñun ëllëg soxlawuñu yëfu yàlla soxlawuñu yëfu yàlla yow dew rek noonu dew rek ku soxlawul yëfu yàlla bàyyil ceeb bi bàyyil diwlin bi bàyyil sa jabar bul dox ci suuf yàlla mu ne man lam yarda ala qadaa'i walam yasbir ala balaa'i ku munul nangu man yàlla li ma def samay ndogal munoo ko nangu yàlla mu ne bul dox ci sama suuf bu la sama asamaan tiim demal nga beneen nga jaamu beneen yàlla aca nañ génn suufu asamaanu yàlla bi nañu dox beneen suuf bu dul suufu yàlla jëlal say bagage soo mere woon sa papa léegi da ngay ñëw ne ko xoolal père yow gis naa ne du ma fi fanaan jël say valise di la mère bi naan la déet nga naan ko xoolal mère bàyyi maa kii nga paa bi nga jël sa bagage gars yi di la jàpp ngay dóoru ne doo fanaan ci kër gi ndeysaan allahu akbar sa sœur yi di la jàpp waaw paa bi naan bàyyi leen ko bu dem kii lekk rek la fi nekkee dimbali leen bàyyi leen bu dem sama ceeb yëpp lekk na ko la ilaha illallah waaw léegi yow boo génnee sa kër papa da ngay dem sa benn kër xarit wala sa benn kër mbokk mu fat la alay sa ko zaalik waaw léegi yàlla nee na ku ma mere bul dox ci sama suuf bu la sama asamaan tiim foo jëm nga am ko ma tontuwaay ah kon ñiñ naan yàlla lañ kii yàlla la kii kii kii kii dañoo réew rek mais xam nga ne ki nga naan yàlla la du yàlla yàlla am na papa ak yaay qul huwa allahu allahu mattaxasa saahibatan allahu akbar in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahmani yàlla mu ne ñi nekk asamaan ak ñi nekk suuf ëllëg yowmal qiyaam bu ñuy ñëw ci man ay jaam la ñuy nekk yow ni nga ne diw yàlla la ana kooku ana kooku nga ne yàlla la ana mu mu ngeeg jabar bu guddee jabar ji futti ko di ko jurgóotu mu yuuxu kooku yàlla la fan toogee yàlla mu ne xool leen asamaan xool leen suuf wa ma tugni l ayatu wan nuzur allahu akbar wa ma tugni l ayatu wan nuzur yàlla mu ne aaya yi kéemtaan yi ak waaraate yi jëriñul nit ñi yow kay xool nga ay kéemtaan gisoo ñu waar la xanaa war ngaa dégg waaye fa ma tugni l ayatu wan nuzur aaya yaa ngi nii asamaan aaya kese la suuf aaya kese la géej gi aaya kese la mbindeef yi même yow sa bopp wa fii anfusikum afala tubsiruun xanaa yow rek boo xoolee sa bopp nga taxaw di nga xam ne yow mii nii nga mel munoo cee changé dara na kenn jóg taxaw fi mu ne man ni ma yàlla def ni neexuma sama nopp yi warul woon nekk fii sama bakkan bi warul woon nekk fii sama gémmiñ gi warul woon nekk fii sama bopp bi warul woon nekk fii sama loxo yi warul woon mel nii sama tànk acca bismillah kan fii koo xam ne fi bëtam yi nekk bëggu ko nañu wax ñu xam mu wax fu mu bëgg mu nekk ah yéen ñëpp fi bët yi nekk baax na nopp yi nag doo ko changé de foo koy def gémmiñ gi nag allahu akbar xoolal moo tax bi mu waxee mbindum bind ba egsi foofu mu ne fa tabarakallahu ahsan alxaaliqin wallahi kenn du ko corrigé jàng ngeen suratu mulk yàlla mu ne xool leen asamaan lan la wax aaya ba ah aaya ba suratul mulk xool leen asamaan delloo si leen bët yi na delluwaat ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير xoolaatal asamaan nga xool yàlla mu ne dellowaatal bët yi xoolal ndax di nga ko gis benn erreur nga xool ba sonni gisoo yàlla mu ne sa bët yi dina dellu siwaat ci yow torox ndax doo fa gis looy corriger xoolal sa bopp doo gis loo corriger xoolal sa bopp ah léegi nag bu fekkee aaya yi mënuñoo jëriñ wa maa tugnil aayaat aaya yi li ñu bëri bëri bëri bëri nit ñi duñu sax waaru dañuy gis benn benn aaya boo am nga dem ñu naan non mbënd mi nit ñi gis aaya la ah ma Sénégal nga gis am na ñoo xam ne ay yàlla lañ am ñoo xam ne dañuy naaw di dem ci Jibril di ko dóor ñii di poñe yàlla ah te mënuñoo téye ndoxum taw ah mënuñoo téye ndoxum taw ñu ne kii yàlla la wala xoolal yàlla lum ñu na tooreen dëkk yi ngand yi ñuy wax diine yëpp dañoo am problème ana yàlla yi fa nekk mënuñu dee ndox mi duñu yàlla nañ teg yàlla place am anzilu naasa manazilahum nit ñi nañ leen teg seen wàccuwaay yi yàlla mooy yàlla jaam jaam la yàlla mooy yàlla kenn mënta wuutu yàlla ci place am yàlla rek allah rek borom bi nee na wa ma tuxnil ayaatu wa nuzur aaya yi ak waaraate yi jëriñul dara nit ñi war nañ leen ay aaya waar nañ leen ba sonn ñu lànk ba ñu gëm yàlla waaye ñan la waaraate ak ay aaya dul jëriñ ñan mu ne an qawmin laa yuminuun ku amul iman da ngay toog di wax rek mu naan la waaw yaa ngi wax rek aaya bu nekk nga génne waaw waaw waaw nga pare hadis go pare mu ne mu ne waaye nag ko ɗum ɗo tawaɗo ɗum min tawi yimmiraɓe ne babiraɓe ne mbaɗa da nga yox ba sonn ndeysaan ba nga yaakaar ne waaji boo ko bàyyee day jàpp dem jàkka ji mu ne la waaye nag da nga xamu rek gis nga diw moom ba mu kiyee sàmba ñëw ne ko ee moodu ñëw ne ko ee bàyyi moodu ñëw tëll fële indil ko ñaari doomu mbiskit kële indil ko kinkili ba mu naan ñu ne ko jeex na ay léeb Sénégal dañ leen dil ay léeb yoo xam ne maa anzalallahu bi min sultaan baay Samba baay Moodu baay Demba baay Paate baay Yero leen lu hadis la baay Moodu sekke na ko baay Moodu yàlla da ngaa yónni est-ce que yàlla dag ne nañ ko laaj yàlla ñaari mbir la ñu indil alquran sunna allahu yàlla bañ ne ba ne wasinu bil qistaati al mustaqim yaa ngeen arrahman arrahman allama alquran xalaqa al insan allamahu lbayaan alsams walqamar bi husbaan wa najmu wasajaru wa samaa rafaaha wa wada al misan wa wada al misan loola doomu aadama di wax ne ko nañ ko peese waaw peese wa wada al misan yàlla daf ñu indil balance yoo xamante ne lu ñu la wax ci àdduna ci diine da ngay teg ci balance bi ñu peese ko kenn ñëw ne la julli moom jaru ko julli nga ne ko nañ ko peese nga jël waxam bi teg ci balance nga jël aaya alquran teg ci balance nga gis yàlla mu ne la wa aqimi salaa nga ne ko waxoo dëgg yàlla nee na nañ julli kon boobu moom teggi ko mu ne la jarul ñuy woor yàlla lu mu wax kutiba aleykum siyaam nga ne ko teggi ko mu ne la màkka jarta dem nga ne ko teg nga teg ci balance bi yàlla mu ne la ah yàlla mu ne la jeex na wa man kafara fa inna allaha ganiyun lu la waa ji wax rek waa ji ñëw ne la ah nu mu tuddati ñeenti jabar moom bu la neexee nga am njaganjaay nga ni ko deet nañ ko teg ci sunna bi léegi yonente bi mu ne la ñeenti jabar lañ maye fankihu ma taaba lakum min annisa masna wa sulaasa wa ruba fa in xiftum alla taadilu fa wahida ñeent lañ la may lu la indil nit indil nga teg waaye fii dañuy ñëw te tey jii ñun ñii ñëpp ku ci demoon ci borom bitig bi ne ko jaay ma kilo ceeb mu ñëw ci saaku bi ne nii ñaari loxo ba mu fees mu ne ana sas kii nga ni ko moo ngi nii mu ne la bismillah da ko yow jàll looy def nii mu ne la ah man na bu ma fontoo de nga ni mat na mu ne mat nga yow mu ne la mat na nga ni matul xam nga loo koy wax bu yàggee loo koy wax peese ko ah léegi nag lu tax bu ñu la waxee ci alxuraan nag bu ñu la waxee ci diine bi dara loo ko wax nañ ko peese da nga naan waaw dëgg la kay man maa toog fii néew yi jóge fii ci armeel yi ñëw naan kafe dellu nañ ko peese ñu seet ndax ku dee di nga dékkiwaat di naan kafe ngeen defe ne nit bu dee woon dékk bu ñëwee fii day delluwaat naan kafe dem tëddaat xel nangu na ko waaye sunu xel yi ñun lu ñu wax ñu nangu ko diw dee na dekki diw dóor na fële diw sàngam diw diw diw Sénégal da ngay toog di dégg loo xam ne non c'est pas possible man laa wax de man lu may dégg man ah damay yaax damay jaaxle sax yenn saa yi ndax lii nu ko ay nit di waxee waaye xam nga loolu problème mooy naka lii naka la ko nit di gëmee loolu mooy wax bi am na loo xam ne boo ko déggee xam nga ne loolu léeb la léeb la diw naan na naaw na ba dem malaul ala ci yàlla waaw mu ñëw yàlla moog yàlla ñu naan ataaya mu ñëwaat nga dégg ne iski ndeysaan benn sëriñ dafa faatu fuuta nit ñi jóge Dakar def délégation ñu dem sang ko suul ko bi ñu sangee sëriñ bi suul ko léegi nag ñuy def discours benn sëriñ jël parole mu ne o o doon ngandi ceerno yehi waaye ne e kono ko waawno hanki ko hannde o ɓuri ɗum waawde wona goonga wala ngandi wona goonga ngandi kay wawa dara sabu ko lootaɗo ha ko kasnaɗo ko juulaɗo ko nawaɗo ubboya mbiyano mo wawi hunde ko wawi sëriñ bi dafa faatu ñu sang ko suul ko ñu ñëwaat léegi cérémonie bi ñëpp a ngi toog benn waaye jël parole mu ne waaw sëriñ dem na kaay na waaw dem na de mu ne waaye lu mu mënoon tey lu mu mënoon démb tey la ko gën a mun lan la mun daa dee ñu sang ko lu mun moo doon sang boppam dañ koo sang dañ koo sang dañ koo jullee dañ koo yóbbu doxul ak tànkam ñu suuli ko mais gis nga ni ngeen di déggee dégâts yi ci olof noonu la dégâts yi amee ci pulaar Ceerno Samba ne maa ngi de ko temedere ari neɗɗo temedere neɗɗo ari ene umminamo o sali ummade mba gorgol makko ari ñumanimo wimo notoɓo yoto wat bone ñine sëñ diw bu mu dee téeméeri góor ñoo ñëw bu koo yëkkati munul dem téeméeri góor ñoo ñëw bëgg a yëkkati kees gi munul dem ñu ne bàjjanam moo ñëw ne ko eh, Samba mu ne mu ne ko wuyul ñii bàyyi li ngay def nooto bee hoto wat bone waa yo wi woyi komi defti ummo saɗa ñaama kono ummo saɗa ubboye wona gonga ah? mu ne li wóor mooy da nga naan yekk naa jógal ñu lekk yekk naa jógal ñu lekk waaye jógal ñu suuli la koo ko wax koo ko wax du jóg kuy nelaw ku ne nga yëkkati mbaaj mi ne ko eh sa waay malaaka yi ñëw nañ jógal ñu suuli la mbaaj moom kenn dootu ko mburi loolu du dëgg nañ dañ ñuy nax rek dañ ñoo naxa naxa naxa naxa naxa ba ñu nekk ay naxa naxa allahu akbar borom bi nee na fa hal yanzuruuna illa misla ayaami allazina xalaw min qablihim nit ñi xam nga lu ñuy xaar ci gëm yàlla la daloon démb nit nit ñu bon ña rek moom lañ toog fii di xaar au lieu ñu tuub dellu ci yàlla fii rek la ñuy toog naan waaw waaw waaw waaw ba ñu xëy rek ñu gis asamaan bi di dal suñu kaw géej gi déborde suuf si di wëlbateeku lan la yàlla mu ne tey la yowmal xiyam loolu kese la ñuy xaar ñun ñëpp au lieu ñu tuub dellu ci yàlla sellal ko kennal ko jaamu ko mais déedéet déjà daw rek waaw yàlla bari na yërmande yàlla nangam yàlla yàlla yàlla rek borom bi loolu la ñuy wax lan la ñuy xaar pour tuub lan ah xaaruñu leen lu dul illa misla ayaami allazina xalaw jour yi nga xam ne ñoo passé woon ci qawmu aad qawmu nuux qawmu qawmu qawmu yooyu loolu la ñuy xaar nii borom bi nee na qul fantaziru xaar leen wax leen ñoom muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ah mu ne wax leen ñu xaar nañ toog foofu rek di xaar di xaar dee ñëw fantaziru xaar leen bu kenn seen liggéey toog rek rek di dunda yaakaar baay sàmba baay moodu baay paate ñenn ñi ne waaw waaw ko àndal ki ñu àndalu la neex laaj dëgër dëgër di tëgg di yuux di zibile ba yowmal xiyaam ba ba nga ne tëll gisoo kooku benn waaye daa accidenté xëm ñu yóbbu ko principal journée bi yëpp mu xëm mu ximili ko fu mu tëdd mu ne nii mu gis saal bi weex tàll mu xool lal bi dara bi weex tàll mu gis ñaari médecin ñu ngi sol ay blouse yu weex waa ji dafa ne yowmal xiyaam la nekk docteur bi jege ko mu ne ko ana waa kër Moodu yi ana waa kër Moodu ban boor la ñuy taxaw damay bañ a wax tur boobu nag ana waa kër Moodu ana waa kër sëñ Samba kooku ne ko waa kër sëñ Samba la la mu ne ko ah fii di yombal xiyaam mu ne ko fii hôpital principal la. daaw la ko jaamul yàlla di xalaat waa kër xanaa xam leen yombal xiyaam kër amul dañoo fekk Ali Zeynil Abidin Ibnu Xuseyn xam ngeen Xuseyn Xuseyn mooy kan. mooy doomu Fatima Fatima mooy kan doomu yonent bi Fatima moomu dafa am doom tuddee ko Xusayn Xusayn màgg am soxna am doom bu góor tuddee ko baayam Ali ibnu Xusayn ñu fekk ko ci kaaba gi dafa julli ba fii yàqu fii dafa yàqu fii yàqu fii yii oom yi dafa ñuul ko ndax rukkoo ak sujjóot bu bu yàgg fii dafa mel ne nefere nag xam ngeen nag su demee àll ba ci àll bi day wow fii noonu la mel ñu fekk ko muy jooy ñu ne ko sëriñ bi looy jooy mu ne benn aaya alxuraan laa gis léegi ñu ne ko lan la mu ne fa isa nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma izin wala yatasaaluun ñu ne ko lu muy tekki mu ne yàlla nee na yawmal qiyaam bu ñu walee buft bi ba ñëpp dekk kenn du laaj koo bokkal te man bu ñu laajul ku ñu bokkal man mu ne du ñu xam maay kan ñu ne ko yaay kan mu ne maay Ali doomu Xuseyn doomu Fatima doomu yonent bi kooku soriwul de te dafa julli ba fi yàqu ñun nag fii ah ay doomu doomu doomu ñoom ngay fekk fee ñuy naan sàngara naan bala muy yegg bi mu daf ko meew meew la koy def meew kee daa julli bi fi yàqu yal nañu yàlla taxaw yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu sori ko borom bi ne xaar leen inni maakum minal muntazirin maa ngi ànd ak yéen di xaar allahu akbar kuy xaar nag mbirum yàlla su ñëwee nag nga yàqu borom bi nee na ëllëg bu sama mbir ñëwee summa nu najji nun ji rusulana après damay musal samay ndaw ndaw yi nga xam ne maa leen tànnoon yónni leen muy yonent yi wallazina amanu ak ña àndoon ak ndaw yooyu gëm yàlla sama mbir bu dikkee ñooñu dama leen di musal kon loolu loo ciy dégg mooy saa yoo nekkee ci ginnaaw yonent yi nga nekk ci ginnaaw yàlla ak yonent bi mbugalum yàlla bu ñëwee nga mucc ci waaye boo nekkee ci ay jaaxaan boo nekkee ci ay fala fala ay def naa yaakaar naa foogoon naa ëllëg yow mal xiyaam du baax ci yow ixwatal iman kazalika déglu leen bu baax aaya bi xaqan alayna nun jil muminin ku toll na yàlla muy wax di ko dëgëral di ko fe bu doon signature la ak cachet ñu ne dóor na ko ci aaya bi xaqan alayna lu wér la ci man yàlla nun jil muminina ëllëg damay muccal way gëm yàlla yi waaye foofu mooy wax ji ay ana ana ñi gëm yàlla su yàlla ne ëllëg damay muccal way gëm yàlla yi yow nga dégg ko kon loo war a def nga fexe ba bokk ci way gëm yàlla yi fekkee bokkoo ci woon soo ci bokkoon nga matt say bëñ mu dëgër nga dee ci ndax yàllaa ko wax kazalika xaqan alayna nun jil muminin ixwatal iman yal na yàlla boole ci muminuun yooyu fii la dars bi yam asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su fekkente ne am nañ ay laaj insha allah
salaamaaleykum salaam.
aleykum salaam damay laaj bu fekkee da nga ñëw fekk di julli ak sa ginnaaw imaam imaam raw la te imaam bi daal di jam dama ba nga xam ne ki ni su jotu xabla salaam lay nekk yow su boobaa bu imaam di def xabla salaam yow lan moo la war.
yow lan nga war a def imaam moo la raw yow da ngay eggali doo ànd ak imaam ci loolu muy def da ngay eggali yow sa julli ndax yow imaam moom moo la moo la jiitu yow doo dagg julli gi topp ko su fekkente ne baada salaam la wala nu mu tuddati qabla salaam da ngay bàyyi ba nga pare nga def ko baada moom benn bi la waaye doo topp imaam imaam bu ne asalaamualeykum di sujjóot yow da ngay jóg daal di eggali sa julli
su dee xabla salaam yi bu dee su jot boo paree bu dee qabla salaam waaw doo ko topp bu dee baada salaam boo paree nga def ko lu tax lu tax jàngoon nañ dars bi fii pourtant da ngeen a fàtte rek jàngoon nañ fi dars bi yaakaar naa ci buluxul maram wala kon suñu dars fiqi war nañ ko commencé waat de ah bon àllarba yi ah mardi yi ñu jël tawxiid bi mercredi yi ñu jël kii di ko changé parce que aussi foog ñu góorgóorlu di jàng fiq foog ñu góorgóorlu ñuy jàng fiq pour ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk loolu il faut ñu góorgóorlu ci lu mel ni surtout julli surtout julli surtout julli foog ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax a baax ci njàng yi ci rukkoo yi ci sujjóot yi ah ci yi ñuy yokk ak yi ñuy wàññi suñu yokkee lan la ñu war a def suñu wàññee lan la ñu war a def nan la ñuy def ba am xusu am naa benn téere bu ndaw boo xam ne mu ngi def surtout na niqaat la def 60 points lil xusu fi salaa pour nga mën a am toroxlu ci julli 60 points pour nga mën a toroxlu ci julli 60 xool xam nga loolu du lu ndaw pour nga mën a toroxlu ci julli dinañ xool incha allah nu ñuy planifié waat ba jéem a indiwaat mardi ak mercredi yi pour góorgóorlu defaat suñu dars fiq yooyu incha allah mais dafa mel ne euh, jamono yooyu nga xam ne ñoo ngi def dars yi dafa mel ne nit ñi samedi yi moo leen gën a ñor daal dama xamul ndax liggéey yi la wala na xëy na samedi bi nit ñi duñu liggéey ji dimanche mais en tout cas dars yooyu tafsir yi ñoo leen di ëpp nit li ëpp daal xaw ma nag lu ko waraloon ah mbay waaw waaw constaté nañ waaw samedi bi la nit ñaan a gën a am jot gars yi ñun war ñu am jot ñun war ñu am jot de waay jot war ñu ko am de suñu dund gi yëpp dund gu ndaw la dund gu tuuti lañ am te eh, bu ñuy xool li ñuy jox yàlla ñun ñuy nekk fi yëpp ci biir jàkka ji laa koy wax ah ku nekk ci jàkka ji rek ah, wax ji may wax engagé na la li suñu dund liñ ci jox yàlla ñun ñëpp bëriwul julli suba ñaata ñaata minute la ku gën a baax la ku gën a baax la julli suba ñaata minute cinq minutes loolu nga jox yàlla tisbaar cinq minutes taksan muy muy timis cinq minutes muy gee léegi lu des ñaata la euh, waxtu wi ñaata la vingt vingt-cinq vingt vingt quatre heures vingt quatre heures ah mooy waxtu bi léegi fii ñaata minutes nga jox yàlla vingt-cinq vingt cinq minutes joxagoo ko sax heure de joxagoo ko heure vingt cinq minutes nga ko jox ci journée bi te yow nee nga nag léegi ku baax nga nag macha allah alhamdulilah salaamaaleykum vingt cinq minutes nga joxagum yàlla dina yow fi mu nekk nii yaa ngi aljanna firdaws laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah Eh, xoolaat suñu bopp iblis mu ngi ñuy nax iblis mu ngi ñuy nax xoola waa ji vingt cinq minutes la jox yàlla ci dundam dafa ne moom malaayika la te dund gi yëpp yàlla moo ko moom waabud rabbak hatta yaatiyaka alyaqin benn xale bu benn meer dafa gis ñuy suul benn néew ay nit topp ci di jooy mu ne kee di jooy lan la ñu ne ko doomam moo dee mu ne waa lan lay jooy ñu ne ko doom bi xale la ñetti téeméeri at rek la am mu ne laa ilaha illa allah lii de ci jamono diw benn sujjóot lañ koy sujjóot mu daal di jeex ñetti téeméeri at ñoom benn sujjóot lañ koy sujjóot yonent yàlla nuux dañ ko laaj nuux noo gisee àdduna mu ne benn néeg la bu am ñaari bunt nga dugg ci biir génn ci biir ñun 25 minutes lañ jox yàlla di bàkku suñu liggéey bi yëpp soo xoolee boo génnee ci fajar jàkk ji da ngay daw jël oto dem liggéey yi nekk ci liggéey bi nekk ci liggéey bi nekk ci liggéey bi bañ ne la tisbaar jot na nga pause dóor yàlla ne ko yàlla xaaral ma ñëw rek tak dóor lu jox la cinq minutes yi amul problème nga dóor ko ko delluwaat nekk ci nekk ci nekk ci ba cinq heures jot ñu ne la nga ne ko waa garaawul xaaral ma ñëw dóor dóor la cinq minutes yi noonu ngay def timis gee boo julee gee nekk ci li la neex yenn saa yi nga gis ku nekk ci télé trois heures de temps dugg YouTube benn waay ndeysaan tey damay tey damay liir ba ci àgg rek may yegg ci loo xam ne man sax damaa rus mu ne ni ngeen joxe seen portable yi yitte maanaam ni ngeen sëgg ci portable yi bu ngeen ko sëggoon ci alxuraan rek texe ni ñu sëgg ci portable yi mu ne bu ñu ko sëggoon ci alxuraan yàlla bi ñun ñëpp texe nañ dëgg loolu dëgg ah xoola whatsapp di nga gis kenn ci ñun ku nekk ci whatsapp 5 heures de temps sa jabar naan la kaay tëdd sa kàkk tëdduguma dama nga tëddi su subhanallah su bokkuma la wala sa jë sa jëkkër naan la waaw soxna si nga naa ko may ma rek gi gi état nekk États-Unis la moom laay waxal sama nijaay boobu sama papa boobu ah ñoom Moodu wa ngénte la ceet ga laay boo gisee gani laay cay vaccin ya bu la ne woon kaay jàngal la fatiha waa ji ne la nañ jàng ma xaari jël xuruuf yi sax ndeysaan benn waaye nee na ma damaa dem ci benn imam mu jiite ma muy jàng sabbihisma rabbika mu ne fa shakkir innama anta mushakkirun fa shakkir innama anta mushakkirun la ilaha xam ngeen fa shakkir mooy lan mooy mandil innama anta mushakkirun yow mandikat nga waa ji nee na ma génn jàkka ji daa xaaru ba sax ràkk bi pare sama dal la fuñ naan yàlla fuñ naan yonent bi mandil ndax yow mandikan nga man du ma ko fekk fa shakkir innama anta mushakkirun la ilaha illa allah bismillah tafaddal waaleykum salaam wa rahmatullah commerce riba mooy aziyaada ndollent damay jaay lii su teewee dërëm la bu ma koy lebale ñaari dërëm la loolu riba la ah beneen bi mooy lépp loo xamante ne da nga koy leble di ci wut ndollent loolu riba la wa halallahu al-bay'a wa harrama riba njaay dagan na waaye riba moom mooy ziyaada da ngay jaay dërëm moom ngay leble wala ma lebal la lii lee nga may fay loolu riba la li ma la lebal loolu nga may fay ba ngoog damay jaay butel bi téeméer la waaye bu dee dama koy leb ba suba téeméer ak ñaar fukk loolu riba la ar riba luxatan aziyaada mooy ndollent ok keneen أخي تفضل جزاك الله خير.
أمين يا الله léegi man loolu wax est-ce que léegi nit ñi bokkaale ñu bokkaale yàlla subhanahu wa taala est-ce que léegi lu lu naturel la est-ce que léegi est-ce que amul maanaam lu nekk ci ginnaaw est-ce que yaa ngi nit ñi sixul yabaruñ yabaruñ leen ba ñuy def lu noonu parce que dama jàpp ne nit ko xam ne ku mu conscient ku normal nga ñun Sénégal ñu ciy bokkaale seen et yow li nga gisee ay vidéo ñun nu ko war a war a ko def léegi loolu lu dëgg la dëgg la léegi